Omar Sow bu bergerie Khadim Rasoul di éleveur bu mag a mag di taalibey Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké Bassirou xalifa général des Mourides ni mu koy defee at mu jot ci waajtaay yu màggal Tuubaa gi defaat na ko ren jii muy indi bernde yu yaatu yoo xam ne jébbal na ko sëriñ bi bernde yooyu ñu mën koo xayma ci lu toll ci téeméeri nag ak juróom benn fukk ginnaaw bu mu indee ci dëkk bi lu toll ci juróom fukki nag yoo xamante ni nii ci ndorteelu weeru safar gi la woon mu jébbal ko waa dëkk bi noonee it la indee lu toll ci fanweeri tonu ceeb waaye ci ziar bi mu doon amal ci sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiiru jébbalaale na ko lu toll ci ñetti téeméeri paketu saabu juróom fukki carton yoo xam ne ay bonbon la def gel yi nga xamante ni moom lañu ñu utiliser ci jamono ji di jàngoroy coronavirus bi indi na ci 320 carton couscous yi mu indi ci lu toll ci juróom fukki paquet li nga xam ne moo jëm ci macaroni indi na ci cent paquet vermicelle noonu it la ci indee lu toll ci téeméeri saak ay lave vitre maanaam yoo xam ne dañ ciy seetal vitre yi indi na ci lu tolloog ñaar téeméer diwlin indi na ci juróom benn fukki paquet ak ñaar juróom benn fukki bidon ak ñaar ak ñaari junni yu ndox ak lu toll ci fanweeri toni ceeb lii lépp mu jébbal ko Serigne Mountakha Mbacké Bassirou ci jëf joo xam ne at mu jot da koy gën a yokku lii nag di wane Pastef gi nga xam ne am na ko ci kër sëriñ bi jëf ji nag yemalewu ko rek ci màggaluk Tuubaa gi nit nii la koy defee ci màggalu poroxaan gu nekk di jëf joo xam ne dara waralu ko lu dul saa su ne muy wane taalibe gi nga xam ne doon na ko ci sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiiru jaayanteeg moom ànd ak moom ci liggéeyub sëriñ Tuubaa bi ba léegi moom mii di Omar Sow pasteefam ci kër sëriñ bi ñépp ko ko seedeel ci jëf ji nga xam ne at mu jot da koy gën a yokk rawatina nag yi nga xam ne moom lay jébbal sëriñ bi mu nekk ay nag yu mag a mag jëf ji nag biñ ko indee jébbal nañ ko Serigne Mountakha Mbacké Bassirou mu bëgg ci lool. kër gi de moom jaaxal kër ak daara yàlla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 fàgg lu mat a fàgg fàgg lu jëlee ko. dafa mel ni da ngeen a bokk ci biir pàgg bi. jërëjëf jërëjëf jërëjëf yii waar nañu de waar boobu waar lu waar la. lu waar la lu waar la waaye yàlla na yàlla xeb doon nangul la jëf ji. amiin àggale la yéen ji. amiin wéral la kattanal la. ba nga mën a nag gën a nekk ci liggéey bi nii. yàlla may la ka wéral kattan boo gën a àggale yéen ji. yàlla na fi yàgg yàlla na sa yéene àgg nag. nañ fi yàgg lool nag sëñ Touba. amiin. Amin ya Rabbal